voilà yeneen ci seen émission diaspora aussi ñu ci Equivox TV ñu ngi ànd ak ki nga xamante ne moom mooy euh, Awa Kara bokk ci association bi ñu woowee euh, Union fait la force nekk fële ca euh, Maroc nga ñëw Sénégal ci màggal gi ñu bëggoon a xam déjà yéen ñi nekk Maroc di fa dund seen intégration déjà ndax yomboon na waa salaamaaleykum waa Sénégal euh, salaamaaleykum waa Maroc euh, dañuy waxoon ange billah bismillah inna waliyallah jërëjëf Cheikhul Khadim suñu yaakaar tey ak ëllëg ginnaaw ba ñu sante yàlla ñu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant suñu ñaari waajur euh, di nuyu le président Baye Sidi teg ko ci loxo nuyoo bi ci loxoom mu séddale ñu ko association Union fait la force yëpp Ousmane suñu intégration comme ni ko waxee Maroc yomb na yombul Euh, parce que boo déggee ma ne la yomb na yombul parce que Maroc dafa bëri ay phase yi nga xamante ni moom la fa sénégalais yi nekkee maanaam am na si ñoo xamante ni ñu ngi ci kër naar yi di liggéey mais am na si ñoo xamante ni euh, ñu ngi si secteur informel bi maanaam di def business di jaay ak yooyu mais am na si ñeneen ñoo xam ne ñu ngi si centre d'appel yi ñooñu sax mun naa ne ñoom ñoo gën a stable que ñi ma lay wax. lu tax nga yombut. yombul parce que xam nga ni tukki dafa metti euh, c'est difficile nga bàyyi sa réew dem dëkk jàmbur boo demee pour nga euh, miin dëkk bi intégré ci dëkk bi day daal di metti da nga siy gis façon yu bëri da nga siy gis ñoo xamante ni dinañ ñëw ba foofu ñu am fu ñu ne wala ñu ñëw ba foofu ñi leen indiqué woon pour ñu ñëw fay seeni téléphone su ko defee day doon lu metti ci ñoom. Mm-hmm. Mm-hmm. am nañu jàpp ni euh, marocain bi jóge Maroc ñëw Sénégal gën a yomb Sénégalais bi jóge fi dem fi. lu ne la ñuy dund loolu mën nga ñu jox ay anecdote yuy firndeel effectivement que ni jafe na dëgg la parce que dangay xool Sénégal comme ñu ko tàmm di waxee rek pays de la teranga euh, ba ñoom gan gi sax lañuy ñu gën a respecté que ki ñëw dëkk fii ci kër gi alors que yeneen dëkk yi peut-être euh, ñun suñu culture peut-être ak seen culture euh, bokkul même ci yoon bi sax da ngay gis ni étranger bi ñëw dugg Sénégal mooy gën a yomb ko yow nga jóge Sénégal dem dugg beneen dëkk su ko defee mënut a bokk Mhm. nan la ñu war a def ba soppite am ci est-ce que loolu mooy déterminer le fait que ngeen taxawul association bi union fait la force pourquoi aw choix wu euh, association bu ni mel ak lan moo ko tax a jox est-ce que li ñu wax nii. Mhm. bokk na ci ay prérogatives indi ci ay saafara wala déet. waaw bokk na ci Ousmane euh, parce que union fait la force euh, ñuy nuyu le président Sini le président fondateur mi nga xamante ni moom moo ko initié woon yaa y a quatre ans de cela muy un jeune boo xamante ni jeune bu bëgg boppam vraiment Sini. daal di toog xool xam ni sénégalais yi sonn nañ ñu ngi jànkonte ay coono te gisuñu ku ñu dimbali muy sénégalais yi comme li ma la wax rek muy si secteur informel bi parce que ñun suñu association bi mën naa ne si secteur informel bi la ñu gën a focaliser wu euh, que ci leneen euh, mu gis ni xale yi sonn nañ sénégalais yi sonn nañ mu ne pourquoi pas mu mënuñu booloo ñu jóg pour dimbali xale yi si la ñu contacter ñun ak ñoom Baye Sidi ak ñi nga xamante ni ñoo fa jotoon ne ñu taxawal euh, groupe WhatsApp ci lañ nekk pendant trois ans association bi nag ba mu jëmmalee boppam taxaw yàggul presque mën naa ne un an rek la toll pour mu xamante ni mu am lii nga xamante ni moom mooy papier ba ñu mën ko tuddee association Union fait la force mais ci groupe WhatsApp lañ nekkoon di liggéey euh, di def social di jàppalante ku feebar ñu faj euh, ku décédé ñu jël dajale suñuy dem ak suñuy dakaar euh, jéem la indi ku ku réer ñu seet euh, ku association bi daal dimbalante la fa nekkee waaw di jàppale sénégalais muy metti ñu leen di jàppale yaakaar naa ne sax loolu moo tax tey jii fii ñu toll ñu toll fa fan ngeen toll ci ay membre ñan ñoo ci nekk dëggantaan ci ay sénégalais ci wàllu lim ci wàllu dañoo toll foo xamante ni instant bi dañoo nekk ci jaayam carte di membre yi parce que wax naa la ko léegi parce que ñun ba ñu jotee association bi muy le président Baye Sidi euh, ak man di présidente bi euh, un an rek lay toll parce que bañ ko jotee dañ koo jot le 3 le 13 mars lañ ko jot ñu fal ñu ñu teg si di jours Covid 19 dugg ba Covid 19 duggee nag euh, alors que association bi fekk euh, ñun jotoon nañ ñu fal ba pare si lañ jub nag xam nga au Maroc. bokkul la Sénégal. Euh, parce que Sénégal si Covid bi mën naa ne woon métti na méttiwut woon mais dafa métti woon si sénégalais yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk au Maroc. parce que. dañ doon xëy di liggéey te dañu ñu ko teree woon définitivement ñu woon xëy dañ daan toog nañ pendant 4 mois yoo xamante ni xale yi liggéeyi wuñu télétravail lañ doon def. pas télétravail xam nga commerçant du def télétravail moom du def télétravail peut-être ñuy liggéey ci centre d'appel yi ñoom ñooy def télétravail peut-être aussi ñuy liggéey kër naar yi ñoom aussi amuñu woon problème boobu mais ñun ñi nga xamante ni ñoom ñun ñoo nekk ci marché yi toog nañ 4 mois yoo xamante ni dafa metti ci sénégalais yi ah yàlla def nag euh, ak le président Baye Sidi le secretaire général Cheikh Koné ak man mii na Awa Kara la vice présidente ñu jóg nag takku dugg nag ci dëkku naa ci ci ci autorité naar yi yàlla boole ñoo benn association benn femme bu ko yor mu tudd Khadija ñu fay dem chaque semaine mu jox ñu ay dons bu ñu ñëwee euh, bu ñu joxee par exemple trente paniers ñu jox ko secteur bale euh, yàlla def nag ba ñuy def jëluñu rek membre association bi dañoo jël sénégalais yëpp. jël étudiants yi jël ñi bokk centre d'appel yi ñu jël ñëpp bu ñu joxee semaine bii semaine bee ñu jox ñële semaine ba ñu jox ñee euh, yàlla dañuy dimbali ba un jour nag am benn naar bu ñu ne femme bii fi muy jëlee yéen war ngeen fa mën a dem jëlee daal ñuy dimbali woo président Baye Sidi parce que moom la rencontré mu jox ko numéro bi foofu président woote fa mu dem ci autorités yi nga xamante ni mën naa ne presque euh, ñoom ñooy gouverneur yeeg maire yeeg yooyu ñu daal ñi at ak ak ak ak monsieur Kane mi nga xamante ne moom moo représenté consil ñu dox ko wax ko ba ñu attribué ñu so 274 peignets ah archive yaa ngi fi ba ñu ko euh, kiiwee nag ñu wala président Baye Sidi président Baye Sidi woo ma euh, ñu toog suñu bureau ñu waxtaan ñu dem ñu jox ñu rendez-vous ñu dem ba ñu demee nag ñoom kàngam yépp ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci gouvernement bi nekk Fès recevoir ñu vraiment recevoir ñu recevoir boo xamante ni ñun xalaatuñu woon loolu sax bañ ñu ñëwee ñu ne ñu loo leen bëgg. ñu wax gouvernement bu Maroc. Euh, gouvernement bi nga xamante ni moo basé à Fès mm. muy Walid bi waaw. nga xamante ni moom mooy mën naa ne mooy représenté comme président beeg yooyu AFES bu ñu recevoir nag ne lan ngeen bëgg ñu ànd ak monsieur Kane ak Baye Sidi ak madame Widaat benn femme boo xamante ni euh, association bu mag la yore daf ñu doon dimbali moom tamit lu bëri ci Covid bi. ñu dem mu wax ñu loo leen bëgg ñu ne ko dañoo bëgg dimbali xale yi parce que liggéeyuñu mu ne ñu am ngeen këyit ñu ne ko non amuñu këyit mu ne non foog ngeen am këyit parce que li ngeen di def c'est important kon yéen foog ngeen am këyit parce que ñun këyit bi euh, association bi ñun bañ ko jëlee li ñuy njëkk a def euh, Pa mooy dem seeti consul ñu dagg suñuy yite yëpp ñu dem ba Casa seeti consul toog mu yendoog ñun waxtaan ak ñun ñu jóge fa euh, dem Rabat seeti la monsieur l' ambassadeur monsieur Seck ñu ngi koy nuyuwaale moom it mu dalal ñu waxtaan ak ñun ñu wax leen li ñu bëgg liggéey si xale yi li ñu bëgg ñu jàppalee ñu ci xale yi parce que ñun defe naa bu ñu jugee euh, di def defu defuñu ngir kenn dañuy def ngir yàlla ndax ba ñu dalee def sociale du tey ba ñu defee dalee def social euh, boobu groupe bi amul kayit dañ ko doon def rek ngir dimbalante entre sénégalais parce que sénégalais bu génnee ku ne xam na ni tumuranke dafa gaaw est-ce que seen rapport ak kilifa yi nekk foofu ca Maroc yomb na ginnaaw bi ñu leen laajee mbiru kayit ak bi ngeen ko taxawalee léegi est-ce que gis ngeen. Mhm. soppeeku ginnaaw bi ngeen ko taxawal pour jàppale sénégalais yi surtout seen rapport ak kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk réewu Maroc. ñun euh, pour kilifa yi nga xamante ni ñoom ñoo ŋànk réewu Maroc amuñu problème parce que dañuy wax ni ñun dañ leen di nuyu. ma si jaaraale sax di nuyu le roi sa majesté parce que vraiment yaatal na sénégalais yi. Euh, te bëgg na sénégalais yi bëgg goo xamante ni da ngay gis yeneen xeet yoo xamante ni bu ñu nekkul sénégalais yi sax dañuy préféré ne ñoom ay sénégalais lañ parce que buur bi fu ñu teg euh, ba pare imposé ko waa dëkkam problème nag du ñàkk parce que ku ne xam ne immigration des fois di nga si gis yenn détails yu sew mais ñun euh, xam nañ ni buur bi moom teg nañu place ah vraiment. léegi ñi nga xam ne ñooy ñooy yaa ngi wax sànq consul. mais mhm. ambassadeur bu Sénégal nekk foofu ak ñu fiy liggéey est-ce que yomb na it seen intégration ak seen liggéey ak ñoom surtout. waaw ñun nag suñu diggante consul mën naa ne yomb na yombul. Hmm. Euh, parce que euh, vraiment damay wax rek te yàlla tax parce que ñun ba ñu jógee dañoo dem vers consul waxtaan ak moom proposé ko li nga xamante ne ñun moom la ñu bëgg mu wax ñu ñu def mais boobu ba tey gisuñu. parce que tey ñun bu ñu sañoon bu ñu nekkee ci terrain bi ñoom dañ ñuy jàppale parce ñun bañ fa demee dañ ne ko yéen yéen fi suñu président de la république parce que lu ñu soxla normalement ci yéen la ñu war a ñëw ngeen appuyer ñu parce que kat yéen yéen fi toogal le président Macky Sall kon am na loo xamante ne ñun bu ñu ko soxlee mu xaw ñoo jafe yéen yéen a ñu war a ñëw appuyer wu ñu pour ñu mën koo am si autorité yi nga xamante ni moom mooy euh, marocain yi mais dafay des seen liggéey parce que des fois le président bay si dina soxla benn affaire sax di woote du jot pour problème mu nag administratif muy ay këyit ay passeport ay ay certificat d'indigence macha allah saa yi ñu leen ko laajee dañ koy jox parce que ñun tout le temps dañuy soxla loolu mais li ñu bëggoon dëgg dëgg dëgg muy jàppale bi ñu war a jàppale ak li taxoon ñun ñu sol suñu dàll dem seeti leen ak li nga xamante ne loolu lañ ñu waxoon gisuñu si dara. dañoo tëju daal. waaw vraiment accès ci ñoom yëg nii. ñu ngi seen i mbiru bopp. waaw vraiment Ousmane foofu nag euh, dama si jaar di gërëm le président euh, Bamba. le président du village immigrant euh, parce que jamono yee passé dafa ñëw ak équipe xam nga lu yàlla nar defar. Euh, da koy defar ba mu ñëwee ak équipe vraiment yàlla boole ñoo moom par le biais de euh, notre représentant monsieur Djili représentant du MECNES de Union fait la force ñu koy nuyuwaat de passage ba ñu demee nag vraiment mun na leen am nañu association bu fi nekk bu tudd Union fait la force ñoom ñu def le tout ba ñu gisee euh, pardon ñu def réunion Zoom. Mm. ñu waxtaan ba ñu waxtaanee ñu xam ne ñun li ñuy liggéey. intéressé na leen ñun tam ñoom li ñuy liggéey intéressé nañu parce que village du immigrant ku ne xam ne day liggéey liggéey bu rëy ci xale yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fii ci ndox meeg yooyu si lañ signé ñun ak ñoom benn convention comme si que dañuy liggéey su ko defee moom euh, le président ba ma nga xamante ni sama goro la mu jàpp moom tamit ci liggéey bi bu baax a baax parce que mën naa ne lii yëpp tey moom la. alors euh, bu ñu jógee ci autorités wax fii nag Sénégal que yaa ngi fii. Mhm. Touba mhm. ba léegi jot ngeen xool ministère des affaires étrangères ak tamit sénégalais direction sénégal de l'extérieur bi nga xamante ne euh, Moïse moo ko moo moo ko jiite mhm. seen rapport ak kilifa yi fii waaw suñu rapport ak kilifa yi comme li ma lay wax rek euh, barki démb laa jógee ci François Gaye euh, ba tey rek ma si wax rek di si remercier au cœur monsieur Bamba Bamba village yu immigrant moo jàpp sama loxo yóbbu ma ba foofu vraiment moom tamit mu recevoir ma ñu waxtaan waxtaan nañ waxtaan nañ vraiment waxtaan nañ te am nañ yaakaar euh, li ñu wax ak moom vraiment dina ci taxaw. lu ngeen waxee. waaw waxtaan nañ pour sénégalais yi ni ñu nekkee euh, ku ñu dimbali lañ bëgg ku ñu jàppale lañ bëgg parce que Pa Ousmane euh, dañoo nekk association boo xamante ni on est de 200 membres. loolu lañ gisagum sax parce que pareeguñu parce que instant bi ñu ngi ci jaayum carte te union bi dafa liggéey loo xamante ni dafa rëy. Mm. parce que union bi mu ngi fexe xale yi parce que buur bi. instant bi politique am ñun dañ koy jéem a topp le roi Mohamed VI parce que moom instant bi dafa bëgg informel xaw a wàññeeku Maroc ñun dañ ko ciy topp parce que fi mu nekk ni mën naa la suñu membre yu bëri indi nañ leen li nga xamante ni moom mooy carte auto entrepreneuriat ba ci man mi taxaw xale yu si bëri jéem nañ sexe fexe leen ñu am carte séjour ñu fexe leen ba ñu inscrire ba seeni carte génn nañ commencé nañ di doxal ak seen carte yooyu union bi liggéey na loolu. te yéen du ngeen doon soxla kilifa yi tamit yu Sénégal yi wane tamit ni yéen bàyyiwuñ leen ginnaaw fexe ba mbir yi gën a yomb est-ce que yëg ngeen loolu maa maanaam ci côté diplomatie jaxasoo bi euh, président Macky Sall jaxasoo ak buur bi jàpp ngeen nii impact boobu yegg si na ba ci yéen. rawatina yegseegul ci ñun. ah oui nan la waroon feeñee ci yéen nga jàpp. nan la waroon feeñee ci ñun mooy lu ñuy def ñu boole ñu si parce que Pa lu ñu la ko nëbb ñun président buy ñëw duñ ko sax yëg. président buy ñëw dañuy dégg jékki rek ne président ñëw na ba dem dañuy jékki-jékki rek di dégg wàllum président ñëw na def na fi gis na fi lii alors que euh, bu président ñëw ñi fay dem. peut xëy na politiciens yi la parce que ñun one est apolitique politique ñun dañ fa taxawal ngir askan bi dañ fa taxawal mais le président Macky Sall man dama yaakaar ni yow bu fekkee tu es le président de tous les sénégalais boo ñëwee ci dëkk war nga fexee gis ñëpp doo fexee rek gis ñi nga xamante ne ñoom ñoo far ci yow. Mm. déedéet parce que bu élection amee nekkul ñi far ci yow rek ñooy dem voté ji sénégalais de lambda yi ñu si ëpp ñoom ñooy voté ji kon yow boo ñëwee ci dëkk war nga xool association yi parce que association yi ñoom ñoo fay souffrir. association Union fait la force mu ngi ci jànk yi euh, Pa Ousmane suba ngoon guddeeg bëccëg du ñu tëdd du ñu nelaw suñu téléphone yi du fay le président Baye Sidi chaque jour mu ngi ci mu ngi ci xale yi nga xamante ne ñooy liggéey Kër Naari chaque jour ñu ngi police chaque jour ñu ngi sonn ci di daw ci xale yi nga xam ne ay problème la am te association mooy taxaw te pourtant association loolu muy liggéey liggéeyu conseil bi la woon. Mm. bañ fa demee tout récemment wax nañ leen ko mais euh, dañ ne loolu ñoom du ñun liggéeyuñ leen leen ko. Ah comme ça comme ça seen yoon ci sénégalais yi même fekkee dañu am jafe-jafe ba ñu jàpp leen prison on nous dit que y a beaucoup de sénégalais yu nekk ci prison yi foofu te loolu moo ko indi te mënuñu ko xayma amuñu benn traçabilité am na ñoo xam sax dañuy dee ci ay conditions yu doy waar mhm. te duñu gis taxawaayu kilifa yi lu mel noonu lu ngeen di dëggal la mhm. que ni amul taxawaay dëgg bu bàyyi ko ci consul fa nekk pour ñu xam ne sénégalais yi kat am nañu ñu leen représenté fii kon représentation bi dafa des trop foofu waaw ñu ne nag amuñu ñu leen représenté comme ni ma la ko waxee sànq rek peut-être ñu ngi def mais ñun suñu côté ñun li ñuy gis dafa bëri te li ñuy daj tamit ci sénégalais yi dafa bëri kon ñoom bu ñu ñëwoon jox ñu loxo ñun ñu jox leen loxo peut-être dañ leen gën a miin terrain bi parce que sénégalais yi ku si am problème da ngay xalaat rek union fait la force tout récemment da ngay gis ku bokkul sax woo la téléphone am problème mais doo ko mën a bàyyi parce que sa doomu dëkk la da ngay jug di jéem ko jàppale te amuñu moyen Ousmane jàppale bi jàppale bi yëpp dugg la def lu waay fi sabilillah jàppale bi yëpp loolu la xale yi nekk kër naar yi aussi naar yi dañ leen di des fois dañ leen di jéem sonal mais bu bu ñu déggee association Union fait la force derrière eux rek dañuy bàyyi dañuy bàyyi parce que le président si di xam na li muy wax xam na li muy def te bu jotee sa patron bu ko waxee ne ko contrat bi laa soxla rek parce que tamit ñu bëri tamit dañuy jël xale yi fii di leen yóbbu hmm. di leen teg ci condition yoo xamante ni bu doon sa doom doo ko ci teg ah fekk benn xale bi fii buy liggéey di fayee ko cinquante mille par mois nga ne ko mën naa la yóbbu fi ñu lay fayee euh, cent cinquante mille par mois day ñëw du xam li nga bind ci contrat bi moom na ñëw rek su ko defee bu tombee koo xamante ni euh, baaxul da koy sonal ci kër gi bu ko ñun bala ñu siy jot fekk trop tard. su ko defee Baye Sidi moom bu si jotee rek alhamdulilah day réglé parce que am nañ ci ay cas cas yoo xamante ni génne nañ leen ci kër naar yi loo bëgg a jeexalee ban message lu ma bëgg a jeexalee mooy Ousmane euh, ak union fait la force ci kaw ci kanam euh, dañuy ñaan le président de la République Macky Sall moom laay ñaan directement mu jàppale doom yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk association union fait la force association bi nag dafa nekk papier yi gis nga mu ngi ni nekk national du sax euh, ville bi yëpp la am ay la ay représentant parce que kayit bi yëpp Maroc yëpp ñoo ko bokk gis nga mu ngi nii récépissé baa ngi nii mu euh, muy loo xamante ni nag yombul ci dëkk jàmbur bu ñu ko yàlla mayee ñu taxaw ngir liggéey yaakaar naa ni li ñuy liggéey président war na ci am contentement war na gis ay doomam yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk foofu parce que ñun guddeeg bëccëg muy taw muy mu ngi mu ngi sénégale yaa ngi ci gis seen bopp bu baax man mii maa ko yore di si dimbalante chaque cinq jours ñu yëkkati benn somme jox ko xale yi ñu dem euh, financer seen bopp liggéey bu ñu amoon nag fonds FAISE yi ñuy dégg muy dugg si te politiciens yi lañ koy jox yaakaar naa ni xale yi nga xamante ni ñoom ñooy lal table ñoo ko gën a yeeyoo buñ leen ko joxoon tey yaakaar naa ni koy jox chaque 5 jours 300000 wala 400000 euh, boo ko joxee benn somme bi naka liggéeyal fay buñ ñu may nañ ñu jàppale loo xamante ni rek sax dañuy liggéey di remboursé parce que dégg nañu ay fonds ñëw na ñëwati te dégg rek lañ ci am mais nag dañuy tàllal suñu kilifay réew parce que nag duñ ko nëbb ñi nga xamante ni ñoom ñooy kilifay Maroc vraiment jox nañ ñu cër respecté nañ ñu te lépp lu ñu bëgg suba ba ngoon ñu taxaw si. kon nag ndimbal da ciy fekk loxo yi borom kon ñun suñu autorité yi muy président Macky Sall muy monsieur François muy ministre des affaires étrangères ñoom ñëpp dañ leen woo. si association Union fait la force. waaye d'accord ñu ngi lay ñëpp nga may ma rek ma tàggoo. di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu sama yaay ah di nuyu sama papa bu baax a baax ah di nuyu sama sëriñ Salim Ndiaye di ko ziar bu baax a baax di nuyu sama goro di nuyu sama xarit yi di nuyu sama rakk ji ma ñëw këram nii muy maam Marème madame Cheikh Ndiaye ah di leen ziar yéen Ousmane di am contentement tamit ci ñëw bi ngeen ñëw di kontaan bu baax a baax ci yéen ok merci allez